Let me make it very clear. Here in this country, we will go by Suratul Kafirun. Suratul Kafirun alañ fee doxee. We bi ñu to the Almighty Allah. Finally, ako mu fi moo daanelee kàddoom a baala ku moo dana dana I will also not allow duma nangu nte sonna people to divide Islam mool se islam o in the kono jang xaaj islam bi ñaar duma ko nangu because also it loolu itam mu ngi ci alquran bi wobe alquran o that we should not allow anyone to divide Islam ne kenn war muslim si wala islaam those who say they are waiting for ñi nga xam ne ni ñu ne duñ julli ndigal la ñoo e e ko minu ko ite salila i e ka yaamarole la duñ julee julee fii tam nañ dem fii seen sëriñ bi nekk ñu julee foofu ëllëg kenn du julee fii ako ite salila jang yeta yeta ila eh, moroɓe ɗami walla ɓe eh, yamaro batu ka ñi ñëpp wax nga ne yow ndigal nga ha te ndigal ki laa jox ndigal bi nekku fii ndax fii la nekk dema si fu moo julee kooku sax du julee si Gambia sakatuma yow si ko ɓe eh, Gambia kono je te koy ka yamarole ban batu yeta woy noma ɓe yamarol ta te jofna insto manga jo instruction to local government ako local government man sa sakunda rengo bunda mu jox ay diyaamu seefool yi. ak yi. ani gouverneur lu. ñu jox ndigal alkaal yi. c'est alkaalool yaamaro di alkaalool la. ñu daaxa ilimaan yooyu ñu fa ñooñu nekkuñu imaam saa saa yooyu ñu joxe seen bopp ak ñu ne ndigal la ñoo xam nañ leen daaxa si seen mos bi oo ko tëj. woo saatel min yaalon koy la almaamool mu saay saa yoon letim ni ma woo ke mbe al fenkool soron la. ministre of interior jox na la instructions. interior ministre police bunda nga yaamaro diilal. unless you want to be in my hotel. xanaa su fekkee da nga bugg a dem ci hotelam bi. na ñi na nit aba ah, jibe la jumale be salla gambia kono jan sam billahi la ah, ah, a kalita la sen sen sen ma ako aba je ako tiflol ko